tok di xaar ñett atu yalla ko xamantene bokku ci sax wala laalewul sax ci lamb ji amana du may mbeur bi ay million mo daldi yak lamb bi doxon demb ci diggante Papa saw ak nak teggu katu nënd bi sita kat mo jël li nga xamantene moy ben ci nënd yi daldi ko xagn ki nga xamantene moy Papa saw ba xar li nga xamantene moy R4 bi lamb bi kat mujjeewul am par décision médicale arbitre bi dal di joxe sans verdict ñu ñu mel sax dafa dawlo sponsor yëpp ginnaaw opérateur mobile yi nga xamante ñom ñëpp dañu téggi sentang tank ci li nga xamantene moy lamb ci dal na di dawlo ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndax promoteur bi dañu dugal ay millions yom bëss jot lu melni am nak promoteur bi jotul tamit mu jël ay responsabilité xam bu baax baax yan mbeur lay teugal xam bu baax baax sécurité bi ci wara am ndax CNG day bayyi nu nu mel mu sedd wala day ñi ndax mbeur yi sax amana danañu jot seen am deet mu nekk lu metti ñepp lu jaaxal ñepp ndax deret gu génn ci Papa Sow démb bëri na trop Siteu Siteu mu nekk phénomène mu nekk mbër bu mag a mag waaye Siteu mu am li nga xamante ne mooy problème mu communication Siteu daal daanaka dafay privilégié sax sax day gën a dëggal wala fulaal li nga xamante ne mooy bëri bi que nit ki ndax asgorkat soo ko saraxul yërëmoo ko bàyyi ko mu dem ak li nga xamante ne mooy yelwaanam ndax démb lu xew ca Papa ak Siteu seen diggante ñaaw na trop trop adduna bi yëpp ñaawlu nañ ko waaye ki nga xamante mooy Masque Margan tamit am na ci taxawaay bi nga xamante ne yéem na ñëpp mu ngi wax waxu recours fan la recours war a mun a am ndax mbëri ñoom ñoo war a wax wala ndax promoteur yee war a wax ndax responsabilité bi ci CNG la ndax responsabilité ci sécurité bi la ndax responsabilité bi ci ñi nga xamante ne ñu ngi bàyyi seen ay yitte bàyyi seen lépp di ñëw di seetaan làmb joo xamante ne amanaa sax su amul sax agression bi day am ci biir ndax démb kat jàpp nañ ci lu tolloog cinquante quatre personnes yoo xamante ne dañoo yor ay arme blanche pour daal di agressé nit ñi ci mbedd bi am na sax ay images yu circulé ci réseaux sociaux yi benn waaye romb benn bis daal di dugal loxoom di fokkati périg jàmbur mu nekk lu yéeme yéeme ndax bu nit nekkee ci biti yow nga nekk ci biir bis mu dugal loxoom fokkati sa périg kooku boo jàkkaarloog moom nan la la war a mën a def ndax làmb violence la ndax làmb dafa nekk ci yoonu yàqute ndax sport pour violence la wala sport pour booloo la képp ku yeewoo ci ëtlu làmb démb am nga lu métti am nga defet ndax ñoom ñëpp ñu ngi xeex di xeex xeex bu métti pour ñi nga xam ne làmb du yëfu làmb du yëfu bon waaye li xew bi gën na dëggal wala sax gën na jox dëgg sponsor yi nga xamante ne rocceeku nañ ci làmb donc mun nañu xaarandiki te yeneen ak yeneen ak sponsor danañu génnee seen loxo ci làmb ba mu set wecc